ñun association bi nga xamante ni ñoo yor wàll asso euh, kii assainissement ci Sénégal fu ni ne nii ñoo ngi rafetlu jéego yi président bi def ci wàll mbënd bi yu mu defeti sax la ñuy wax ndax yàgg na koo def dix milliards yi mu joxee nii pour ñu def ko ci mbënd bi jamono ñu toll nii ñu ngi prêter attention ñi nga xamante ni ñoo féetewoo ci wàll woowu ñu bàyyiwaat xel association bi ndax. depuis bon lurette ñoo fi nekkon bien avant 2000 di xex mbënd bi mbënd bu fi am ñu ñoko ko yore kon donc tay ñu ngi ñaan ñi nga xamanteni ni ñoo waa féetoo ci walu bobu ñu jëm ñu jappalé ñu mëna a liggéey liggéey bi té ñu bàyyi sous-traitance bi nga xamanteni mom lañuy doxé ay jamono bobu ba léegi ndax ñi nga xamanteni xamuñu dara ci secteur bi ñoy bénéficié ci ay marché ñoo dañuy sous traiter à partir de maintenant dootuñu joxati kenn kenn kenn benn camion u benn pompe pour nga war a mun a liggéey kon boog ñu ngi dénoncer loolu nga xamante ni mu ngi am xëy na président de la république yëgu ko ñun ku ku ñu xam-xam ni ci mbënd la ñuy yëngu ak ci ay villes religieux mbënd yi fi am muy 2000 muy 2007 muy 2005 ba moom président de la république ci boppam bu muy diggu ci kanot bi di wàcc biir Belleville ñun la àndaloon. avec le feu ministre Issa Mbaye Samba en 2005 ñu ñoo nekkoondoo ci biir ndox bi guddi ak bëccëg compter inondation de ku ñu koy waxati dafa am ñi nga xamante ni ce soit des soi-disant vidangeurs ñooy ñëw jël ay marché xamuñu fu ñuy taalee pompe xamuñu luy pompe xamuñu luy hydrocureur ñoo ñoo jël ay marché du ñu sous-traité fu mu ne di euh, ministre de l'intérieur moom lañ ci alerté tax moom mooy piloté plan Orsec bi kon moom moom la ñuy adressé directement pour mu xam li xew ci biir ñu mun ko koo leeral jamono ju toll nii ñun dañoo ne lànk du ñu dem fenn du ñu liggéey fenn lu dul direct mais marché indirect dootuñu ko liggéeyal ci nit